Cheikh Fall Cheikh Fall PTP Cheikh Fall di fàttali ni yow El Hadj yéen bokk benn ndey ah. Ah, di la ziar bu baax di ziar waa kër ga ca Kaolack ndaxte yàlla suñu borom dogal na man teg naa fa sama tànk Moussa laa doon seet sa grand ñu ngi koy ziar bu baax a fa baax a baax Moussa Fall bu impôt domaine kon ñu ngi lay ziar Cheikh Fall ginnaaw nuyoo bi euh, ñu Cheikh Fall PTP Cheikh PTP euh, ci ban position nga fa nekkee. ci ban position. waaw Omar yow. yow sama waa famille nga. oui foog naa ni miin nga kër ga. Ah, mais PTP c'est le boo xam ni parti boo xam ni El Hadj Diouf moom moo ko sos. Mhm. di mag si ñun di kilifa. depuis lors aussi comme ñun xamuñ ko du El Hadj Diouf muy suñu kilifa du sosee parti tant que amooguñ notification bu wanee ñu dàq nañu parti bi <laughs> man foog naa ni waruma mën a dem ci mag yi keneen. tant que amuñ beneen notification bu wane ni dàq nañu parti bi léegi nag chaque jour man je me suis dit toujours dans le PTP. mais grand bi dàq na la. waaw non xam nga gisaguma ku mu yónni gisaguma aussi benn lettre bu ñëw ne dàq nañ la d' accord d' naa ne réunion yi kenn du ma <laughs> kenn du ma. <laughs> gëj nañ ma woo réunion de. <laughs> mais man je me suis dit que je suis la seule personne qui défend le PTP man ku laal météo laaj bu dal ku ku ku dal ci kaw ba dal sa kaw. mais nag des fois euh, àdduna day demee noonu il faut aussi ñu comprendre parce que nit ñi dinañ foog nii yow sax des fois vous êtes leur ennemi numéro un or ci àdduna yow ñoom nga gën a bëgg. mais yaa ko cokkaas yenn saa koo cokkaas. parce que boo nee candidat à la présidence wala secrétariat wu PT PT El Hadj Diouf jiite ko. non non non man euh, dafa am à mais coup d'état coup bëgg def. non bëgguma coup d'état parce que il le secrétaire général du parti. Hmm. mais parce que dama li ma wax dama ne pour être candidat dans un parti il faut investir par un congrès congrès boobu comme defagu ko te ñun ñu sommes dans le benn on défend Macky Sall qui est notre leader donc nous sommes toujours euh, avec Macky Sall moi je soutiens la candidature de Macky Sall. mais El Hadj Diouf candidat déclaré la parce que dafa jàpp ne Macky warul am troisième mandat. nga bàyyi ko fa dem di soutenir Macky Sall mooy yaa ngi cokkaas El Hadj Diouf. wala nga jiital wala nga jiital ko di ko fa xasal. non non Guèye xam nga man li ma gisee nii. ku nekk da nga am sa lecture en droit constitutionnel man li ma gis mooy depuis ñuy dem référendum bi Macky Sall peut bel et bien être candidat te am naa ci bokk naa ci leader yu bëri yoo xam ni gëm nañ ni Macky Sall mun a nekk candidat donc kon je soutiens la candidature de Macky saala ba keroog. conseil constitutionnel bi nga xam ne moo ne ci kaw ñëpp ne Macky Sall mënut a nekk candidat. ñu uti sa xalifa moo a xam droit bu ba ne mënul nekk candidat war nga ko doyloo. waaw yokk discipline de parti na nekk sama patron de parti mais mais dans notre parti il y la démocratie man loolu laa gëm te moom gëm na ni yaa indi démocratie dans ce parti donc sama point de vie mooy. droit ku nekk am na droit def lecture bu la neex mais sama lecture mooy Macky Sall peut et bien être candidat. El Hadj bu jaaree ni nga jaar ne. non doonul jaar nii ma jaar nii cela veut dire que ñi ngi juboo ci ñi ngi ñi ngi juboo ci affaire yu bari jubóowu leen ci dara non ñi ngi juboo koy ruubee xam nga du jaaree nii duma jaar nii dafay nuru kon leneen mus nañoo am peut-être ay bruit mais je me que moom kilifa laa ko jàppee sama kilifa la la fee ma tuddee ko loolu la fee ma tuddee ko doom ah xam nga xam nga nit xam nga nit jël xam nga doom tuddee ko saa loolu rëy la. nit ku la tuddee doom desalatu la dara. mënu la rëy la mënu mais nous sommes en politique. et puis en politique. jusqu'à présent je reste au au sein du parti des travailleurs et du peuple non non non maa ngi resté xam nga pour lan. dàq nañ la du dee mobilisation ak nit man kenn ëpp ma fa nit kenn ëpp dàq ma mobiliser. du dee dans les débats chaque fois je les défends mais nag man aussi dama gëm ni Macky Sall c'est le meilleur président pour le Sénégal. Mm-hmm. et puis et puis gëm ni sa candidature est voilà et recevable. ñun waxuñu ay candidature Macky xam nga yow yaa ngi orienté débat bi. feneen foo xam ni Omar laaju la lool. Omar lim lay laaj mooy ruube gi nga nekkee ci seen parti bi nga xam ne mooy PTP. mais parti bi moom mooy ruube man ruube wu bi. parce que duñ demee réunion. Hmm. réunion yoo xam ne da ngay jàkkaarloo ñii ñuy organiser en nga ñëw réunion yi sax des fois dañ lay menacer pour doo fa teg sa mais dama ne. non non dama ne parti ba kay moom a ruube non doo may dàq dafa am ñun ay nit yoon nañ cela veut dire doo may dàq dafa am loo koy notifié pour wane ni yow kat génn nañ la parti bi mm-hmm. non foofu nag ma yor samay bagage ut parti bu ma dem ma toog fa ma ne saa sax mun nañ créer suñ parti bopp xam na yow li li def nii mooy lii élage parce que yow da nga ne da ngay nga génn ko dernièrement bi ko ordre des avocats tegee daan mm-hmm. gis nañ tontoom génn di jaayam sëñ bi Fall am na ah. mais mu mais man man ba ma foogoo bi ma déggee ñu annoncé point de presse bi dama foogoo ni yow yaa koy jiite. mais gisuma la ci dégguma la ci nga ni. yaa koy défendre dafa mel ni nga ko yéene woon quoi mais mais xam nga nit. Hmm. ku nekk ay action hmm. doomi aadama dinañ ko def te action yoo xam ne doonul la da nga koy wone publiquement pour montrer ko pour soutenir El Hadj Diouf man ñi ma ko seexaal ak moom ñi ma ko seexaal xam nañ ni kenn gënu ma nekk premier soutien. mais bi famille bi génnee waroon nga génn. Euh, non no attends cela veut dire que bi ñu génnee dem dem dem dem defi seen euh, benn rassemblement conférence pour lui soutenir mais am na gisoo fa les membres de la famille pour lui soutenir gisoo fa kenn donc famille am dafa am fu ñu koy soutenir mais xaaruñ leen ci ay télévision je la première personne bu soutenir El Hadj Diouf parce que information bi maa ngi ko njëkk a déggee si Walfadjri ñu ne dàq nañ El jouf Diouf rajo nañ ko xawma ma lan. Mhm. waaw donc man je savais que mu mu peut-être nit ñi ñoo xamul rek barab bi dina suspendre téeméeri avocat te kenn du ko yëg. Mhm. pourquoi la suspension de maître El Hadj Diouf même pas dix minutes àdduna yëpp yëg ko. moo ci gën moo toll noonu. ah waaw moo tax ñu nangul ko loolu moo tax moo tax nangu nañ loolu mais yàlla def na sutura ak xéewal ba barab yi aussi vraiment son des avocats yoo xam ni xam nañ duñ xëy rek euh, xañ nit euh, ay waleefam ay kilifa yu mag ñoom ñoo fa nekk di nuyuwaale Ousmane Thiam maître Ousmane Thiam et consort ak euh, Pape Leyti mais dañu déggoon ñu ne dañ ko doon jaay doole ñan ñoo ko doon jaay doole parce que famille ñooñu bi ñu dajaloo dañ ne maître Diouf du nangu jaay doole gi ñu koy jaay doole kan jaay doole maître non xam nga man du ma fa newoon wax ju du demee noonu xam nga pour lan. parce que xam naa fonctionnement di baro nan lay doxee. parce que munoo teg avocat yi lii bañ a teg bii avocat lii dafa am neneen nu muy dafay mel ni. deux poids deux mesures. Mm-hmm. donc aussi la fait ñu jël maître El Hadji Diouf suspendre ko provisoirement pour deux semaines man du ma si di que du ay sanctions sax. parce que duñ la du dee dañ la dañ la condamné dans ce cas mun doo defee appel l' appel est suspensif à la condamnation. Mhm. mooy waral ni même duñ ko condamné woon la même jour sa suba sa day de si. Mhm. mais aussi peut-être ki nga ki nga xam ne bokkul si kër gi miinul. mun na waxee noo xam ni mais gisuma baro bu ko jaay doole mhm. man baro boo xam ni compréhensif boo xam ni vraiment ay kilifa yu mag ñoom ñoo fa nekk di famille am ñoom laa fa gis ñuy di leen nuyu ñoom xam nañ gisuma fa jaay doole. gisuma fa mais Cheikh léegi man euh, bëgg naa man Cheikh yow man euh, yow Cheikh doo avocat man Cheikh moom Cheikh mii dafa mel ni mooy borom tribunal bi yow Cheikh yow lan nga tribunal. man c'est euh, te parce que am na ñu bari ñu wax ne comme yéen ñi nga xam ne yéen ñi yéen nekk tribunal di wëndeelu noonu dikki yéenay lëjal far mbir yi <laughs> waaw. man man man yàlla def na ni. <laughs> cabinet maître El man man yàlla man yàlla def na ni. ci cabinet bi man yàlla def na ni. du ma doxantu sax ay tribunal. Eh, dama la parce que du ma duggee tribunal dossier la am du ma duggee dossier tribunal dossier la am. Hmm. parce que man je me suis kilifa laa. Hmm. te li may def mën naa ko maîtriser naa ko def naa si plus de. treize eh, ans ou quatorze ans. Hmm. parce que dooy xool samay attestation c' est l' attestation du cabinet maître El Hadj Diouf. droit dafa am nuñ ko nuñ ko nuñ ko ëmbee. non non non. mais dàq mais cabinet bi tu es toujours euh, membre du cabinet. Euh, non je suis toujours membre du cabinet xam nga plan. duñ hmm. la joxee attestation du cabinet même man jàpp ma ay El Hadj Diouf ay attestation ñoo boole. Hmm. parce que bon je me suis que c' est un frère. Hmm. chaque jour ma jox nit numéro am chaque jour ma liggéey ci dossier am ba ba ba démb ci mujj. yaa ngi am commission. chaque jour non non loolu beneen affaire la xam nga mm. pour lan mm. doo joxee avocat yi fa nekk un dossier <laughs> eh. avocat yi duñu ma liggéey loo dossier Alaaji Diouf mais ñi ma bu maa bañ xalaatuma ko ci àdduna mm-hmm. Mm-hmm. mais donc et puis mon attestation c'est l'attestation du cabinet mm-hmm. yàlla def aussi kenn mënut a tudd El Hadj Diouf bu dee faal bu bu El Hadj Diouf parce que doone faal ban faal ngay wax faal bu maître El Hadj leen loolu kenn mënatu ko dindi parce que bi koy yàlla di bind ñun ñaan ñi bokk. man yaa ngi ci cabinet mais yeneen avocat ngay liggéey mu mais doo liggéeyee dans le cas dans le euh, dans le cabinet avec d' autres avocats mais c' est soutenir Maître El Hadji Diouf c' est dans le cadre du cabinet tout simplement. Mm-hmm. yéen a ngi maintenir seen i waaw waaw way démb rek nañ mujjee déggante. et puis amatuñu loolu day faral di am di am nit dina am ay jafe-jafe avec sa famille mais aussi vraiment c' est un gars boo xam ni kilifa la boo xam ni il est compréhensif. Mm. xam na ni problème day am. Mm. am na problème day am dans toutes les familles mais problème bi du amee après dañuy dépasser loolu ñëwaat revenir mm-hmm. waaw et puis moom alaaj Diouf ku nekk ku ko xam-xam na ni du du jàpp quoi mm-hmm. mun na reyante nii xëtër mais du paree pare na ci ah, nañ ko baax na mais El Hadj El Hadj Diouf ni muy ni muy gars nee nañ moom show la gën a mën maanaam génn ci presse bi wax wala dara xew mu génn def comédie wala yooyu façon boobu mi defee yow ban jàngat nga ci am waaw xam nga la l'avocat comme disait maître Abdoulaye Wade c'est l'art de parler. Mm-hmm. parce que dooy wax sax te wax ji comme gisoo saa ni muy def nii pour lan ñëpp naan saa macha allah. Hmm. parce que da ci ànd ak aar bu muy def. mooy hmm. waral ñëpp di ko suivre bàyyi ko xel. naan di jëlee hmm. escroc man lay escroc yaa ngi dégg <laughs> mais saa du ñëwoon rek nga xëcc na nii même doo ñëwee ci benn xew cérémonie sax xëcc na nii rek yor sa këyit di liir affaire ba du neex. mais magistrat yi dañuy yàkkamti la plaidoirie de maître El Hadj Diouf. gars du wax droit day show rek moom. non non. à la, attention, il était, fait, fait, faisait partie des meilleurs élèves au Sénégal qui dirigeait le mouvement des étudiants en 88. Cela veut dire que non non non non non loo ko mun di waxal loo ko waxal c'est un grand avocat mënu ko wax leneen parce que kenn gënu ko nekk un <laughs> grand avocat kenn kenn gënu ko maîtrise de droit pénal mais léegi ñu dindi cabinet bi teg ne léegi ñu ñëw ci parti bi PTP mhm. yow PTP depuis kañ woowuñu la réunion. yàgg na depuis plus de trois ans yi. kenn woowu ma réunion fa yow tamit non non xam nga politique man ni ma ko jàppee. Hmm. dangay def li nga war a def rek parce que man maa ngi instauré di di di di liggéey ci suuf. ba pare tak ñoom xam nañ ni tey duñu woote woon léegi man li ma mën a indi ak mën danga ko mobiliser kenn mënu ko mobiliser si ñoom mais nag dëkk dafay am loolu dafay am àdduna moo demee noonu ñoo xam ni seen intérêt rek nañuy wër suba bu guddi jot seen intérêt mooy yow buñ la may pour nga jege El Hadj Diouf buñ la may pour que yow nga mun a am benn parce que doo ko jegee peut-être yow yaay nekk bras droit bi ñëpp yow nañuy solliciter. xam nga loolu des fois du neex ah, mun leen bokk ndey ba pare sore non non loolu day am day am day am partout am na ñoo xam ni dañuy écarter tout une famille. pour que ñoom ñu mun a régner c'est leur position parti familial nga bëggoon mu nekk non non du parti familial parce que ah, le PDP c'est un grand parti ah, loolu la bëggoon mu nekk non non non le PDP c'est un grand parti xam nga c'est un grand parti PDP nan lañ nekkee grand parti parce que le PDP dem na ñaari yoon élection pré élection moo tax keroog biñ organiser une conférence de presse euh, ci conférence de presse bi mais je me suis dit que lii yéex nañ ko def dañ ko waroon a def chaque fois xama lan hmm. parce que dem élection législative nekk député c'est pas appelé à n'importe qui hein dix-sept euh, prétendants ñoo demoon ñun ñi bokk ci gars yi demuñ ñun ñaari yoon ñi ngi nekk di avoir des postes de député donc dans ce cas moi je me suis dit que le PTP c'est un grand parti parce que El Hadj Diouf aussi de quoi qu'on puisse am na Sénégalais yoo xam ni moom nañ bëgg ci ay yàlla moo def loolu seen xol jël ñu El Hadj Diouf au non non si parce que le fait nga dem voté nit ki. xam nga ni El Hadj Diouf loo yàgg na mais depuis quelque temps moom jonoo jàpp ne. El Hadj Diouf ay jamono doon futur ah. président bu Sénégal maa fi wutu diw ak bu dee partem man de budul moom yow rek laa ci xamaat. waaw non parti bi xam nga peut-être li may faral di wax. lu hmm. doon dañuy bàyyi ñëpp di génn gis nga ñu génn démb ñoom Jean et les Bibo Thiendella et consorts. et met Fall ak ñoom ñëpp son son son vraiment ay ay kilifa yu mag nañ ñi nekk ci parti bi mais parti boobu duñ ko bàyyi woon mais journaliste en per en quelque sorte ñoom chaque fois dañ naan non El Hadj nañ soxla moom moo war a ñëw mais El Hadj Diouf nag moo war a organiser de telle sorte que am nga xale yoo xam ne mun nañ wax xale yoo xam ne mun nañ leen défendre mais xale yooyu xam nga bàyyi leen ñu dem xeex mu leer yow mi yow mi ñun nañ la ataaya invité waat la yow invité nañ la ay yoon yoon te yaa ngi ci parti bi yow kañ moo te yow yow mii télé woo wax dootul dootul dootul. yow télé woo wax mais yow lu tax yow duñ la gis tamit ci yeneen yi. non non xam nga loolu yëpp day fekk El Hadj Diouf ubbil ñu ko xam nga nit ñi fii dañoo organiser. ah kon moom moo tëj loolu. non si parce que du dee palaato bu ñu war a dem yow nga occupé ko. <laughs> waaw c'est mais plateau bu ñu war a dem yow nga occupé ko mais ma ba ma gis wàll fajee sa TFM benn xale yi greffier taxaw na encore yow xamoo mais cela veut dire que mais du doon man il ose il n'ose pas le faire. Ah. non ce gars-là il n'ose pas la faire et puis il sait très bien que Ala Diouf c'est pas son égal mais le problème mooy dañ la bëgg. Eh, ñàkkal fayda de telle sorte que. doo toogee foofu ñaa non waaye da wàññi nga mettre El Hadj Diouf pour avoir des félicitations. yi muy def moom tamit mais mais El Hadj Diouf 35 ans de barreau toi tu viens d'arriber pour lui dire que yow doo dara téye niil El Hadj Diouf qui est le défenseur de tous les grands projets de ce pays et partout en Afrique. mais comédie bi muy def est-ce que nekkul moo non c'est l'art parler li ma la wax rek. du comédie l'art de parler ba avocat ba ci kaw taxi. du ko du ko mais cela veut dire que. non xam <laughs> ngi gis aw Talla Diouf dem sere sere yëpp di échauffé woo lu ne mu dugg ci. <laughs> waaw xam nga waaw avocat ba ci kaw teg xam nga xam nga. alaay ah. benn nit boo xam ne la. <laughs> dafa am benn particularité. waaw cela veut dire que. dafa il ne fait pas les choses à moitié. Mhm. Ah. parce que yàlla moo ko biddee noonu man je me souviens avec Sidi Lamine Niass. Ah. biñ koy arrêté yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yu gën mag. Sidi xeex xeex bu rëy pour le Sénégal pour la mhm. démocratie de ce pays kenn waru ko yàq. Mhm. donc dans ce cas bi dafa bi muy dem bi ñu na ko Sidi mais boobu temps il était avec le pouvoir mais si sensé audience bala bal fële dem hôtel de relais. man avocat ya fa ne di ma woo naa ma mais sa waay man ndeke moom mi ngi rële di organiser conférence de menacer le pouvoir pour la libération de Sidy moom moo mel noonu mais vraiment c'est ah, il faut nañ ko nangul ni c'est un avocat il fait job. mais léegi heure bu tax toogee euh, conférence de presse sànni sànni ñu xeer. waaw mais parce que wal yi la il a euh, waa Walfadjri ñoo doxalee noonu contre moom gis naa fi seen benn chroniqueur la gars là. kan euh, kii waaju gàtt ji kii nan Ndiaye. yow kat boo waxee ku gàtt daf ñuy jaaxal. non njooloo. non <laughs> non non kooku maa ko suuf. man bi nga dee waaju gàtt Aliou Sow et puis chronique. Aliou Sow lay chronique lan lay joxtee ci nit dafa dam moom dafa. Aliou Sow fi gàtt euh, chronique chronique ça n'a rien à voir avec nit ku damm même du El Hadj Diouf damoon. kan la ah Cheikh Bara nga rëq. waaw waaw ah Cheikh Bara nga rëq waaju gàtt mais même du doy dafa rëq. Eh. day jëppale. <laughs> ah waaw waaw gàtt non non tur bi laay fàttee. xam nu ma koy siiwul sax El Hadj Diouf waaye El daa daanu woon. non moom bi muy wax El Hadj Diouf dafa daanoo dafa El Hadj Diouf il n'était même pas à Dakar il mu naam dafa tane woon ci moment boobu. non est-ce que tane woon non. cela veut dire dara dalu ko. y a xamuloo lu bari Cheikh El Hadj. non alaaji ñoo bokk benn yaay waaw mais xamaloo ko non non non xamal naa non non non non alaaji mun naa lu du ndékkee sax mun naa la wax la na ndékkee xam nga pulaan hmm. parce que amul juróomi minute yu mu dul woo yaayam te man amul fukki minute yu ma dul woo sama yaay dégg naa tey da laa bëgg yow ah da laa bëgg mais kan la yaayam bañ surtout nga am ma doom ju mel ni man ah <laughs> am yéemaane si sa ndey ba pare bëgg sa ndey bëgg sa famille yow sa yaay da lay bañ. sama yaay moo lay bëgg yow yow ñoo bokk léegi ba politique bi tam waaw Moussa mi ngi. Aprodel Moussa il soutient Macky Sall. Aprodel waaw pour que aussi xale yi nga xam ni. ay kilifa nañ di reyante nga xam ne mbooloo yi ñoo leen moom au niveau de Kaolack ay Moussa Fall ay kaañ Kandji. mais ñooñu nañ leen faral di leen woo parce que ñoom ñoo yor mbooloo bi. mais Kaolack am na ñu fa nekk ay euh, seen euh, président conseil bi nu mu tudd. xam nga Ahmed Benjeloun xaw ma kooku nga xam ni mënul dara. waaw mais xam nga dara am na keneen kii. waaw euh, seen raxma moomu. est-ce que ñooñu war nañu aussi est-ce que yéen bu ngeen boole woon. ñoom bu ñu boole woon ñooñu jegewul sax Moussa Fall ci politique. waaw mais Moussa mu dem vers ñoom mais problème mooy nit ñi du ñu informer Macky Sall ce qui est vrai Macky Sall ñu paa yi ko tiim ak ñëpp. duñ ko wax xale yi xeex ci suuf. mais ñii nii ci ñoom la ñu bokk ci Macky la ñu bokk. ñan waaw mais mais parce que foog nga ni saa njóog mii di ñëwee moo la gën a aay da ngay perte sa place. moo la ëpp nit moo la gën a aay da ngay perte sa place cela veut dire que li ñu war a wax Macky Sall la ne ko ay docteur Kandji ay ba ay Moussa Fall. ay Kaolack non yow yow say ngay wax non non attends non dama gis liggéey bu rëy bi ñuy liggéey. ku leen. di mais bu ñu liggéeyee waa Kaolack dinañ fal bàyyi leen. non Kaolack parce que c' est le président de la République moo désigné euh, avec son parti ñoom ñoo désigné le mouvance présidentielle ñoom ñoo désigné seen candidat. parce que ñi gis dañoo foog ni ñoom ñoo yor liggéey bi yoruñ dara amuñ ñaari nit. ñi yor nit ñi mooy xale yi nga xam ne ñi ngi si biir suba ngoon ñi ngi Kaolack di liggéey ñi ngi sur le terrain. Mm. affaire yu demee noonu. mais don dans ce cas on ne peut pas jël rek jël ko en otage. ub ko fëleyaane di te duñ ko won ñi nga xam ni maa ngi gis sax benn euh, woykat bu woy woy bu rëy ci Macky Sall mais chaque fois damay gis ñu duñ demee mais mitin Macky Sall kii Ameth Thiou mais ki nga xam ne jël na responsabilité ba pare ay menaces lay am di matin au soir ay saaga suba ba guddi jot mais jël président de la république woy ko mais leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans la bennoo mais au moins du ngeen organiser ngeen dem jëli ko pour ñëw teg ko pour que au moins ngeen encouragé ko mais euh, euh, euh, Benno mooy parti boo mooy mouvement boo xam ni mbooloo moo xam ni ku nekk rek sa intérêt ngay xool ñoom ñoo yàqal Macky Sall amul kenn ku wane lu Macky Sall mu di liggéey. mais mais yow yaa ngi ci tribunal bi am na ay dossiers yu bari yu nekk tribunal bi. Mhm. Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Mhm. Ousmane Sonko Adji Sarr. am na yenn dossiers yoo xam ne yóbbu na leen instruction. Mhm. dossiers yooyu nan nga ko gisee. waaw c'est le déroulement normal du tribunal. Hmm. cela veut dire que man. dans l'époque et Ousmane sonk rek laa gis ni doone une procédure mu ne non dañ ko wax contre ma doone diw mu ne non parce que et puis et gis nii nga ne yow les magistrats nga traité leen lu nekk or que ces magistrats sont des gens yoo xam ni ay ay nit yoo xam ne ay ay ay gor nañ non seulement ay gor nañ mais am na loo xam ne dañ koy jomb dañ koy rus ba pare kenn benn Macky Sall munu leen a def loolu ñu war a. mais danoo gis ne nitu Macky Sall lu mu def mën na ci génn mais bu dee keneen moom waxuma la sax ñu tëj la mais instruction la lay yóbbu tey la 6 mois yoo xam ne même bu la àttewul te des fois c'est compliqué le cas de Pam Ndiaye ñu ngi koy ñaanal mu génn mais aussi yu oyof la ñuy jàppee nit yóbbu instruction alors que am na yoo xam ne mën nañu ko gérer en flagrant délit àtte la nga dem sa yoon bu lay tëj. ñu tëj waaw xam nga Pape du ma ci bëgg a wax parce que c'est un dossier boo xam ne. Pape sama frère la pendant pendant man maa ko souligné. Pape sama frère la hmm. et puis mais parce que woo naa ko la veille Hmm. ne ko paap tribunal Dakar mu ne ah mën a ko amul 19 subsides yi beneen bi si de ah. paap mu ne ah mën a subsi subsides yi sont des magistrats ay kilifa nañ hmm. parce que doo ko xoolee un subside premier adjoint subsides yi hmm. tey moo dirigé c'est le patron c'est le patron du parquet de Dakar. Mhm. di ko nuyu di ko féliciter de passage. parce que bi mu ñëwee parquet ba léegi Abdou Karim Diop il fait un travail extraordinaire boo xam ni ñëpp a ko rafetlu te amul benn dossier bu fay taxawlu. ba pare ñu nekk ay nit yoo xam ne amul lu ñuy farfarloo peut-être doo leen xamul danga naan nii samay xarit mais magistrat amul xarit lépp dañ koo teg ci yoon. donc dans ce cas mais doo ne da da juum doo juumee da ngay parce que aussi yéen vous êtes des journalistes ay ay sources day am. source bi mun na mun na indiqué. mun na nekk de mauvaise mun na nekk de mauvaise man man vraiment maa ngi jéggalu santuma ko sax mais maa ngi jéggalu ci turi paap turi famille am parce que dafa juum dafa juum juum googu mu juum. waaw parce que xam dafa juum même doo jëlee même doo jëlee doo jëlee. non non lan. doo ne 19 substituts man sa sais que y' a du dee loolu li si des sax du ma ci dugg. parce que c' est un dossier pendant. Okay. mais dans ce cas. Mhm. man mais man waaw mais mais man damay ñaan. Hmm. ñaan bi mooy. Hmm. damay ñaan pap dafa am famille dafa am ndey dafa am baay pap nañ ko jéggal. d'accord tëjee leen foofu Omar temps bi. Ah, kii nu mu tudd Cheikh. Cheikh euh, Fall Cheikh kontaan nañ émission bi neex na trop. ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw ma di kontaan ci invitation bi et parce que vraiment fii sama kër la. Mm-hmm. waaw saa sama doomi ndey Guèye Fall vraiment. ak euh, Assane Mesere maa ngi koy nuyu sama xarit boobu. Ah. waaw Baye Assane sama gaañ la vraiment donc euh, di rafetlu invitation bi di wax ni waa PTP du ngeen defati invité leen man ci PTP woo leen man ci laa bokk PTP man bokk leer na waaw d'accord jaajëf waay jaajëf ma Cheikh Fall bokk ci PTP ah euh, di liggéey ca tribunal ñu koy dossiers yu bari di jaar ci loxoom ñu koy gërëm bu baax